713 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te buñ nee góor ngóoraa tax salaamaaleykum am internetu Sunugal 24 nuyu nañ leen ci gën di nuyoo comme nañu koy faral di defee saa su nekk ci seen biir xibaaru bés bile ñu door ko njiital Pastef bi di Ousmane Sonko ginnaaw ba ñu ko doon duut baaraamu tuuma dafa daal di rek sàkku teg ci sax ay menaces de mort kii di Adji Sarr boobaa léegi nag mu mat at looloo wala nag jamono juñ toll nii ay avocat Ousmane Sonko rek di demander rek ñu daal di melever de compte judiciaire bi waaye loolee nag le parquet daat na koy rejeté. ca Mbour kawteef moo fa daal di am ginnaaw ab élève buy def terminal moom nag la ñu daal di jàppee ak drogue bu bari mu ngi toll sax ci 6 kilogrammes moom mi ak complice am bi di wuyoo ci turu SYAT jamono juñ toll ni nag brigade régionale des stupéfiants moo leen daal di teg loxo. beneen mbir moo daal di xew ca Touba ab sage-femme moom nag moo daal di rek jàmm jëkkëram ginnaaw rek ba mu ko daal di waxee ni daf ko takkal wujj ca naka noonu moom mi rek mu daal di koy jàmm ba jamono ju ñu nekk nii nag kii di borom këram mi ngi ci duggante dund ak dee. démb ak lakk gu métti moo am ci salle des ventes bu nekk ci avenue Lamine Gueye bu Dakar jamono ju ñu toll nii nag ñu ngi xibaar kenn ñàkku ci bakkanam waaye lim ba fa yàqu bu ñu ko doon xayma ci koppar takku na. loolu ci sport la ñuy dem niki démb ba Paris Saint-Germain doon def seen séance d'entraînement ci naka noonu kii di Kylian Mbappé dafa di ko ki nga xamante ni euh, mooy Gana Gueye daal di koy dëggee ci tànk loolu waral nag jamono ji ñu toll ni ñi di mer ba futu di ni mooy Idrissa Gana Gueye ak sax jabaram ci naka di Kylian Mbappé daal di nay fësal ci page Instagram am rek di dooleel ki nga xamante mooy Gana Gueye daan ko gën a yaatal waral ginnaaw ba ñu nemmee ko appel folklore ci jëj setes bi di yaa awa rasul jamono juñ toll nag ñu ko doon ŋàññi ci réseaux sociaux yi moom nag génn na daal di rek ci ànd ceek ki nga xamante ne mooy papam waaye nag la waral mu génn mooy rek moo ngay jéggalu askanu laayeen bi waaye nag ma ngay xam ne ni rek moom xam na ni naam sax tooñut waaye dina jéggalu comme nag ñenn ci askan bi jàpp nañu li mu def méngawut ak diine am internetu Sunugal 24 xibaar yi dañu koy jeexale ak Omzo Jojo ginnaaw nag ci appel bi ñu weesu ca kër yaa Awa Dieye ginnaaw ba ñuy da woote ab appel rek waaye moom li di am Jojo mu daal di jot ay vidéo yoo xamante ni rek nee na dañ ko ci doon sànni track ba tax na moom mi le ma nga daal di fësal meram rek jëmale ko ci yaa Awa Dieye Mame Bassine Thiam di wax ni rek ñoom ñu le ku ci nekk yor na sa dossier te bu ñu mayul rek dina ko génne benn par benn daan ko gën a xibaar yi am internetu Sunugal 24 ngeen taaxee lu bàkk bi jàll ñu gën leen a yaatal yooyu lay xibaar. salaamaaleykum am internetu Sunugal 24 nuyuwaat leen ci gën di nuyoo comme nañu koy faxal di defee saa su nekk ci seen biir xibaaru bés bile ginnaaw ba ñu koy toppee ne dafa daal di sàkku ba noppi rek tegal ko ci ay menaces de mort njiitul Pastef bi du Ousmane Sonko moom nag jamono ji ñu toll nii ginnaaw boobaak léegi ba mu amee at moom nag ak ay avocat am ñu ngi daal di sàkku rek ñu daal di euh, dem li li nga xamante ni rek mooy compte judiciaire bi nekk ci ndoddam waaye loolee nag waa parquet daal nañuy rejeté lu ni ba tax na sax ña ngay xamle ni mbir moom la kii di doyen des juges moo ci war a nag àddu waaye boobaak léegi kenn rek moo ci wax ci loolu war a sax jamono ju ñu toll nii kii di procès Ousmane Sonko depuis bu mu amee ba léegi benn lu yees rek daal di feeñ ba tax na askanum Sénégal di sàkku rek ñu daal di di rek wax fi mbir mi féetee maanaam fi gi féetee ci fàttali Ousmane Sonko moom la ñu duutoon baaraamu tuuma ne rek dafa daal di sàkku ba noppi rek tegal ko ci ay menaces de mort kii di Adji Sarr Sarr boobaa léegi nag mu mat at waaye ba tey kenn xamul fu dëgg gi féete ci Mbour ab élève buy def classe sub terminale moom nag la ñu daal di teg loxo ginnaaw ba ñu ko fekkee rek ak doroog bu bari bu ñu ko xaymaa sax mi ngi toll ci six kilogramme moom nag ak ki nga xamante ni rek mooy dawalkatu Jakarta bi di wuyoo ci turu Yaata ñoom nag daat nañ leen ni rek teg loxo ñi nga xamante ni rek ñooy brigade régionale des stupéfiants moom bu Mbour moo daal leen di loxo moom bi la nag ñu ngi xamal ni rek ab élève la woon doon def classe euh, terminale kawteef moo daal di am ca Touba ab sage femme moom nag moo daal di jam boroom këram ba mu nekk ci diggante dund ak dee dama ñu ñu toll nii sax ñu ngi xamal ni ma nga ca lalu hôpital ya la ko waral nag ki nga xamante ni mooy jëkkëram daf ko daal di annoncé rek ne ko daf ko daal di takkal wujju ca naka noonu moom mi lay daal di mer ba futu rek jël paaka a jam jëkkëram ji ba jamono ji sax ma nga sonn lool moom mi lay daal nañoo koy tegoon loxo waaye mujjanteel gi sax daat nañoo koy bàyyi ba tax naa moom mi lay rek. dina jàkkaarloo ak enquêteurs yi mardi bi ñu jëm. lakk gu metti moo am niki dem mu ci salle des ventes bu Dakar ci avenue Lamine Gueye lakk gi nag ma nga daal di door ci ngoon gi ma tax na looloo tax sax waa sapeur ñëw nañ def seen kéem kattan ba daal di fay boobu lay lakk waaye nag eh, kenn ñàkku ci bakkanam waaye bu ñu xaymaa rek la fa yàqu mburu ci koppar mu daal di takk lool niki dem nag ñu daal dafay gis ki nga xamante ni rek mooy monsieur le maire de Dakar di Barthélémy Dias waaye mbir moomu nag ki nga xamante ni rek mooy sapeur yi la ñuy xam la rek. mooy ni boobu lay lakk xamuñu sax lan moo ko rek sabab ba tax na la ñoom ñi le ña ngay xam ne ni dañ koy bàyyi ci loxo yi police mu daal yi wéyal boobu lay enquête lu soxal mbirum people Yaa Awa Rassoul moom jet setteuse bi ginnaaw nag ba ñu ko daw duut baaraamu tuuma ne rek dafa daal di woote mbumbaay ak xumbaay ci appel bile ba looloo sax tax ñi nga xamante ni rek ñooy askanub Laayeen bi daal di mer bay futt di ko duut baaraamu tuuma moom nag niki démb daal nay fësal ab video ànd cek papam di ñaan rek am njéggal ci mbir moomule waaye lam ci xam ne rek mooy ne naam tooñul sax waaye nag am nañu ci daal di mer rek ba tax na moom mi rek ma ngay sàkku ab njéggal ci askanub Sénégal Sénégal waaye sax nag ci laayee ni moom nag la muy xam ne rek mooy mbir mi jublu woon ci lu ñaaw ba tax na rek képp koo xamante ni rek tooñ na ko moom la di Awa Rassoul eh, mi ngi ñaan ab njéggal ci mbirum appel boobule ak yaa Awa Dieye ca naka noonu sax ñu gisoon ci ay invité yu ci mel ni Mame Bassine Thiam ak ñeneen i artistes yu bari ca naka noonu sax am zozozo moom nag xëy na daal di fësal ab vidéo mer ba futtu rek duut baaraamu tuuma ki nga xamante ni mooy Mame Bassine Thiam ak Mbathio Ndiaye di wax ni rek dafa daal jot ay gaaw awru waalo yu jóge ci ñoom ba tax na rek moom mi leen mi ngi daal li nga xamante ni mooy melengaan di wax ni rek ku ci nekk yor na say ay dossier te ku ku ci maytuwul rek ah, dina ko génn benn par benn am internet Sunugal 24 xibaar yi dañu koy jeexale ak lu soxol mbirum sport ginnaaw nag ca Paris ba ñu doon amal seen séance entraînement yi ki di Kylian Mbappé nag daal ci jële ay gaañu gaañu te Gana Gueye mi sax daal di ko koy tekk jamono ju ñu toll nii nag kii di Gana Gueye ak nag ña ngay doj dëgg ca foofu ca Paris ginnaaw nag ci réseaux sociaux yi ñoom ñu ngi leen di yàq melengaan ba looloo tax sax nag kii di Kylian Mbappé daal di xëy fësal ci page Instagram am rek di ko dooleel di wax ne rek ñoom ñoo far naam mbir mi am na sax waaye tayu ko ba tax na rek mi ngi ñaan ñu daal di rek arrêté yooyu nga xamante ni rek ñu ngi koy def maanaam di ko xas ak di ko ŋàññi sax ci réseaux sociaux yi am internet Sunugal 24 li ñu doon ci xibaaru wax ngeen wéy duñu topp ci seen bi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 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax